bokk yi ci gannaaw ba nu sant yàlla julli ci sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa noo ngi baal xaq ñëpp di balu xaq ñëpp yàlla noonu yàlla boole jéggal suñu ak moom te dox ci suñu diggante ak suñuy moroomi jaam euh, weer wi nag dafa mel ne genn wàll gi bu jant bi sooyee danañu loo xam ne dañu ko doon séentu ba mu agsi ñu bari di ko waajale nu nekk di ko séentoo ci anam bu nekk waxoon nañ ko keroog ba ñu dalal ko léegi waxi tàggoo lay wax moom la wolof di lépp naan lu nuyoo tàggoo na waaye bokk yi fukki fan ak juróom yi nga xam ne moo weesu eh, ndax nit ñi am nañ ci ab taxawaay bañ ca waroon a am ndax waruñoo taxaw bu jant bi sooyee ba man mat fukk ak juróom seetaan fukk fukk ak juróom yi weesu waajalewaat ko fukk ak juróom yi nga xam ne moom la ñu dëgmal yàlla noonu yàlla may ñu àggale ko ci jàmm ak dal ni ñu àgg ni fukk ak juróom yu jëkk yi euh, fukk ak juróom yu jëkk yi nag dafa nekk ci xaaju ñaareel bi ci koor bi ndax koor gi yett ñetti xaaj la fukk yu jëkk yi ci digg bi ak lu mujj fukk yi ci digg bi nga xam ne ca la ñu nekk ba am ci juróomi fan euh, euh, doon nañ ko junj ci waxtaan yi ci yi weesu weeru koor fàttaliku kese la rawatina fukki fan yi ne ci digg bi rawatina suba wala ginnaaw suba fukk ak juróom-benn jëm fukk ak juróom-ñaar. am na rëdd yu ci lislaam rëdd ci ay xat-xat yu metti yoo xam ne rëdd yooya su fekkoonte ne ci jëwub nit ci jëwub nit lañu ko def faatu du tax rëdd ya faam su fekkoonte ne ci ay montagne ak i xeer lañu ko rëdd it danaan fàng ba ba àdduna tukki ndax la ca xewoon mooy lan mooy euh, taarix histoire daf caa wëlbatiku mbir xew moo xam ne kenn foogu ko woon ndax bokk yi xeexoo bi ci amoon bi ci gën a fës te ñu di ko fàttaliku ba léegi ak njàmbaar feeñoon ca aw fit wu rëy feeñoon ca ak ku gëm yàlla desul dara ba ca gën a fës mooy xare bi ñuy wax xare Badr doon nañu ko jum ci keroog yàlla wooyee na ko lu ëpp yaar ci ay tur yowmul furqaan yowmal taqal jamaan keroog la xewoon mooy ña gem ka gemboon noonu ya yéefaree ka leen gemboon muy seytaane keroog la seytaane dëkk ariyaam dellu gannaaw kum doon songoon ndax alxuraan mi ñuy wax ne ba kuréelub jullit daje taxaw te kàccoor bu mag ba waxoon waxam ju rëy ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génneel say kàngam ma yóbbu leen aljanna ginnaaw da ngeen a wax ne ku dee dem aljanna wala ñu moom ñu rey ko mu dem ñoom ñu leen aljanna ñu rey jullit jullit dem la ñu dem sawara ndax gëmoon nañu sawar la ñu dem donte ay ñaawal la dañ doon ñaawal jullit yi ne génn leen ñi ngeen am ñu yóbbu leen aljanna wala ñu yóbbu ñu yóbbu leen sawara ñoom yëpp ba ay jàmbaar jékki ko koor ak fit wu ñu ne ñu wax sayante ñu ne soxla wuñu leen indil leen ñu seeni nawle waay suñuy nawle ñoo xam ne eh, boo tuddee rek daal daal ñuy boole tudd keroog la jàmbaar bi Sidna Ali ne xanaa man seen nawle laa ñu ne ah. Sidna Xamsa ne xanaa man seen nawle laa ñu ne ah ñu ne kaay leen bokk ñu yóbbu leen sawara wala ngeen yóbbu ñu aljan te bokk ci da ngeen waroon ca la seytaane xoole pas-pasu jullit yi ba yàgg mu ne wëqët te moo ne moo ngemboon yéefar yi wan leen ne leen yéen a yor alal ji yéen a yor doolay soldaar si yéen yor dund bu doy su ngeen fa doon am ay weeri weer seen dund du jeex waaye yéen a yor jongoma jongoma yi yor sàngara si yéen a yor tëggkat yu mën yee tëgg waaye ba jullit ja dogoo ba jàkkarloo ak mbooloo mu toll nañ noonu ñu toll woon fa waxe ne eh, fukki nit ci yéen du lim bi moo ci am solo waaye pas-pas bi in yakun minkum ashruuna saabiruuna yaglibu mi'atayn ñaar fukki nit yu nekk ci jullit yi ñaari téeméer lay wàcc ci yéefar du lim waaye pas-pas bi ca la seytaane nag ne ah gisuma lu ma xam moom gisut lu mu xam ñu ne ko lay wax ni mu ne ah bu ngeen gisoon li ma gis da ngeen daw le waaye am na ñu rëy ñoo xam ne bu ñu xasee ba dëgmal def doonte xam nañ ne dañuy échec dañuy jàll ndax rëy a tax du jom waaye rëy na moom la alquran di wax ne wa iz zayyana lahum ash-shaytaanu a'maalahum wa qaala laa gaaliba lakum al-yawm wa inni jaarun lakum falamma taraa'at al-fi'ataani nakasa alaa aqibayhi wa qaala inni barii'un minkum inni araa maa laa tarawna inni axaafu allaha wallahu shadiidul iqaab loolu mi ngi amee woon ci fukki yi ci digg bi ci weeru koor bi rawatina ñaari fan ak ñetti fan ci suñu kanam benn ba ñaar julli di seenam lim néewoon na lool lim nañ ko ba tudd ñetti téeméer ak fukk ak ñett ku dem ci téereb sëriñ mag boobu mu tuddee nazmu asmaai ahli badrin dana ci fekk ñi nga xam ne mag lañ jógee woon ànd ak bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñi nga xam ne yonent bi tudd ay ansaar keroog lim bu bare ba amutoon solo ca léwtoo ba ak songoo ba pas-pas buñ boole woon aku koor loolu tam daa ma di kon ginnaaw bu pas-pas taxawee bu tegu ci kaw ndigal ak gëm yàlla wër eh, damaa woor amatul waaye fexe ba ndigalu suñu borom ñu sotti moo ci am solo loolu mbokk yi war na koo jàngat bu baax a baax ci digg bis yi nga xam ne ci lañ nekk nii eh, donte ñu baree ngi jàmbat lu bari koor gi daa moo ne réew moom mais xare ba doon xewee moo gën a tàng ba tey moo gën a tàng moo ne xaalis amutoon xamuñu woon xaalis ñoom xamuñu woon ndogalu baax suñu masaan takk xamuñu dañuy dellu moo ne sëñ bu mag miy wax ci ay mbindam ne am na ñoo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana wax ne diw du dellu si diw du dellu diw du dellu diw dana dellu ak jam-jam diw day dellu si dara du ko jot ña dégg ne dañuy duñ dellu si leen tax a découragé ndax lañ gis moo leen gënal fuuf liñ nekkoon ak liñ nekk moom la sëñ bu mag bi di wax ne wa qaatalu man qad naa humu safiru shufaa xatta algubaaru sataa bayna jabaanin wa kan waa kër diw bay boo ñu firi waa kër diw bay boo ñu firi bay ba mu dénkaane waaye dégg gëm koy dégg bu ko tax a wàññeeku bu ko tax moo tax weeru yi bu ñëwee doonte takk guñ ci ab xare waras na cee xes xeñtu bu gën a xeñtu bokk rawatina fukki fan yii loolu xewoon ci tënku ci lu gàtt euh, lu bari la mën naa am bokk yii ñëw ci fan yi danañ si gën a indi ay leeral dañ ko sant waaye ab julit bu fekkiwut loola it te loola it xewaatagut néewuñu du xewa néewuñu du xewa waaye ginnaaw xewaatagut waras na jàngat loo xam ne moom ku ko jàng ku ko roy man ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gënoon a tabe wax nañ ko keroog eh, ñii misaal nañ ko ci du ay géej gi am ñu ne géej gi fekk ak góofam nekk doo ci jariñu wala ñu demal la kon dëkk ak géej te mënoo caa dem demaluñ la ca tax nga xam xamuk géej waaye am ñu ne ngelaw ngelaw lu di di lu way tëj tëj say bunt ak say volontaire su ngelaw li dalee da nga xam ne ngelaw jaaroon na fi ndax poussière dana ne ci néeg poussière bopp doo pënd boo xam ne doo xam fu ngelaw dugg kon tabug yonent bi bokk ci ngelaw lu kon bokk tabam googu li yaatu yaatu ak li muy lëw lëw teewut bu mu kooru masaan ñëw ca lay raw kon kooru tab weeru weeru tabe la roye ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye weer la woo xam ne suy masaan ñëw yonente bi kenn mënut a wax ne dana am jamono yu nekkul di jaamu yàlla ndax xamut la naa waaye su weeru koor masaan ñëw daf koy gën a dolli ba ku ko xam da nga xam ne kii lim toggoo ci ay jaamu yàlla ci guddi yi ak bëccëg yi dëgg-dëgg raw na baraxam wala weeru kor yi waaye bu ci daan saraxa it ku laaj mu jox ko ku laajut mu jox ko waaye seeti ku wérati dem ngénte demal aw xew dem di wër di seet ku ne ci jafe-jafe lépp ci koor gi la daan ràmm sallallahu alayhi wa sallam rawatina njàngum alquran ak ay rakka yu bari ay rakka yu bari moo tax waroon xam-xam yëpp jubóo nañ ci ne eh, yàlla moo ko ne woon sa nuqri'uka falaa tansaa lu man du ma jàngal koy fàtte waaye teewul su weeru koor masaan ñëw jibril masaan indi alquran day wàcc ñoom ñaar ñooy jamoo alxuraan jamoo mooy bu kii jàngee ab aaya kii jàng aaya ba ca kii jàngub aaya kii jàngub aaya ba ca ba at demam jot bu subaa mu xëy si waat loolu daana am ci weeru koor waaye bokk yi yonent bi ñi waroom xam-xam yi waxee noonu la daan woore moom laa doon junj keroog ci euh, jiw day woore ci barab sàngam njariñ la muy jariñ waa dëkk ba waroon xam-xam yi nee na yonent bi sallallahu su ma saan xat ba julli suba ba noppi fa lay toog ba naaj bi tàng julli ji te waxam du génn yàlla nee ak mag nee na woon fii ci na jooje maana jooje day ànd ak jëf ju wér yi tegtale yàlla nee na ak maana ji tus ba tusbaar jot bu tusbaar jotee mu génn ànd ak mbooloo mi julli toogaat sab diir gannaaw gannaaw tusbaar dafa bokk ci salaasu awraat yi alxuraan bi wax kenn ku nekk dem fatu ji buñ nottee takkusaan mu dellu génnaat fa lay toog ba dog ak ñoom dugg ci biir waaj julli timis toog fa yàlla nee na maane ba julli gee jot kenn ku nekk tasaaroo ndax daje ci jàkka di julli ay rakka ni ñu koy defee léegi xewutoon si jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn ku nekk néegam la ko def ana lu ñu ko doon bañ su ko yonent bi saxaloon ci jàkka ja day daal di war ñëpp moo tax alquran ne wa min alleyli fatahajjat bihi naafilatan laka asa an yabaasaka rabbuka maqaama mahmuudan nit ba bañ ne baasin yàlla bañ ne basi yàlla mooy suuf na lew mu ne ñokkat ne fojjat dem jàpp ci ndox mu tànk ndox mu sedd mi ak lu jamono ju ma taseel di sëgg ka siigi ngir yàlla ba waxtu wa nit ñi di war a yeewu mu mel ne ku yeewoo noonu ak ñoom loolu it am na ku ko ci toppandoo ñaar yooyu ñett yoon waaye ba ko ñeentaat dafa nëbbutu ndax day bañ mu nekk farata ci moom ak bari kon koor gaamu noonu kooru weeru góorgóorlu la weeru fàttaliku njàmbaar gu ña woon defoon weeru def lu baax la weeru jàng alquran la weeru julli ci yonent bi sallallahu alayhi la mooy xasaayid weeru ñaan la waaye weeru doxi ak bokk la ak jokku bokk ak demlante ak dikklante sëriñ bu mag bi daa waxoon ne liy xeex ak seytaane mooy jokk ak bokk te loolu rawatina ci weeru koor daf ne woon xeex seytaane jërut wut wut gunt gunt mooy ab xel jërut wut fit jërut wut jaasi taatànk waaye seytaane li ñuy xeexee moom mooy da ngay def lool xewle bañ ko ko wax te bu la waxee xool nga bañ a dem booy ñaan bañ koo ñaan te bu la ñaanee nga bañ booy dénk bañ koo dénk te bu la dénkee boo leen di ay dëkkandoo nee na nag li jokk ak bokk rawatina bokk yi ci weeru koor moo la ku la ci wax aw xew nga dem ci booy dénk dénk sa bokkum jullit booy may may ko booy leb ku la lebee nga lebal ko yooyu ma tudd nga xam ne yaa koy defal nit ki su yàggee ba yàgg lu mu néew néew ñi daañu la wóolu nag ñu di lebal wala ñu di abal rawatina nag ci weeru koor yi kon nañu ko gën a fonk bu baax te gën a góorgóorlu bu baax a baax a baax xam ne ñetti xaaj yi ñii wax ne yonent bee ko wax ñu wax ne yonent bee ko wax sallallahu wa sallam ne njëlbéenu weer wi la yërmande la am ci yërmande suñu borom lu yomb la yal nañu yàlla defal digg bi ak njëggal la yal nañu ko yàlla defal waaye mujj ak bare ci sawara la ku am yërëm ku ku ma ne suñu borom gan njëggalam muur ko day daal di mucc ci sawar yàlla nañu ko yàlla defal ma tëjee nag loo xam ne dañ ko fee waxtaanee ba ci dem ci ajjuma ci mbirum conférence yu bari yi ak théâtre yi ñu ciy def ci télé bi am na kilifa bu mag boo xam ne mi ngi ci biir Sénégal waaye mu ngi Sénégal daf maa woo ma foofu nga tudd micro théâtre wala Sorano wala feneen jaamu fa yàlla moo jaamu yàlla feneen benn la yàlla su ne mës na ko fa jaamu ma ne ko déedéet ndax yéene yi ñuy tabaxee jàkka ak yéene yi ñuy tabaxe Sorano ak Grand Théâtre du benn te it tontu lu tembare lay doon du doon lu xóot lu ñuy wëri ay téere ku ne xam na ne ittihaadaat riyaadiya yi nga xam ne yëpp état daf ko taxawal mooy fédération fédération yëpp di yëngu ci wàllu tàggat yaram tàggat yaram bu ci nekk ñu koy wax discipline ak benn bu ci bokk ak moroomam fu ñu koy def benn bu ci nekk wutal nañu ko barabam bu dee football bokkut ak suñu basket dañ koy wutal barab boo xam ne dañ cey ñàkk alal ju bari football rekk koy tax am na sax yeneen stade yoo xam ne omnisport la tudd ñu di fa dawee di fa footballé waaye am na yoo xam ne football kese leneen daganu fa waaye am na it foo xam ne basket kese moo ko tax a jóg ak i yoo ne fii dañ ciy xam ne it dañ fay volleyball ak fu ñuy boo ak foo xam ne dañ fay tennis ak fu ñuy karaté ak fu ñuy boxe yooyu benn bu ci nekk boo la tax mu jóg xam ne wóotale nañ ko ak moroom du ñu bokk ni ñuy daane naan ki gañe na ke duñu bokk nu ñuy daane nit ki naa ko def nga la wóota def duñu bokk ñu leen di àtte ginnaaw nag sport lañ tàggalee noonu nga xam ne lu ci nekk ak fañ koy defee waxuma laa tëgg ak fecc ak waxtaan yàlla ak yonent bi waxtaan yàlla ak yonent bi jàkka ji la gën a jekk wala barab boo xam ne bii loolu dong moo tax ñu def ko fa muy ak tànt wala boom fuñ ko tabaxal foo xam ne loolu dong moo ko tax a waaye mbokk yi ma gën si foo xam ne fii dañ fay doo def ndigalul seytaane fanaane ko tudde ko ñooñu koy tudde ñëpp ñëw ku nekk joxe fa alal ju bari góor ñi ak jigéen ñi xoolante kenn du bàyyi xel buy dem fa mu jëm waaye nu ko neex lay solo mel nu ko neex ca ëllëg sa ñëwoo talaat fa yàlla ak yonent bi tudde wat ko ñu ko tudde woon bëgg dem su loolu xel sax da ko nangu loolu xel dafa dàq waxuma laa xam-xam kon ñi nga xam ne dañ leen di woo grand ñuy wuy ji wooteb seytaane foofu seytaane ko moom ndax seytaane moom lañ ko fa defal wenn waajtaay wuy wane ab jullit mën na faa def liggéeyam amu fa musuma fa dem waaye laajte naa ñu ne jàkk amu fa amagu fa fu ëpp jullit di nekk foo xam ne fii julli mënu ko fa fekk bu ko fa julli fekkee ni muy def am day dafay leb ba dem a te lam nekk du benn ngant ginnaaw waajaluñ fa dàkk waajaluñ fa imaam waajaluñ fa ay noddukat yoo xam ne lu ñuy def la ñuy kañan kañan bi su ñu ne ay ci leen bokk yi foofu du barab bu ñuy waxtaane yàlla yonent bi donte moom moom fépp waaye day sib foofu da koy sib bi yëfe bi yëfe daan dàkk makka di fa aji di rey seenu jur buñ ko reyee ba noppi jël deret ji taqal ko ci xërëm yi ne ci biir kaaba gi yi ko woon dénk ko njaboot bi door a dem bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee def ne déedéet du noonu yàlla lii ngeen di dàkk fii ñu ngi fépp waaye du foo dem na fekk ko fa doonul ni foo dem na fekk fa yàlla ndax fuqahaawu yi di jàngale diine ana ko nit dañ naan ab jaaro boobu xaalis bu toll nangam góor mën na koo takk waaye buy dugg ci wanag fekk dañ sa bind turu yàlla na ko teg bañ koo duggaale ca wanag te bu nekkee ci wanag it bu mu fa tudd turu yàlla bu mu fa wax foofu dul place am foofu dul place am kon nañ xam ne karaté yéene ji ko tabax du jaamu yàlla moo tax ñu tabax ko te suuf si yaatu na du grand théâtre dong lañ ko mën a defe ndax yàlla nee na bu ëllëgee am na ñoo xam ne malaayika dañ leen di interroger laaj leen yéen fu ngeen nekkoon ba gaa yi jaamu yàlla ba war a dugg aljanna ñi ngeen ne tong fii mel ni ganaar ko taw te am leen fu ngeen jëm ku ngeen wakk mu bañ ñu ne ko bañ nekkee fa gaa yee nekkoon dañoo amutoon suñu jaamu yàlla dafa xatoon suuf sa daa xatoon maanaam ay minorité lañ woon minoritaire aqaliya lañ woon malaayika yi ne leen waaw foofu rek a fi nekkoon ci kaw suuf inna alladina tawaffahum almalaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustadafina fi l ard qalu alam takun ardullahi wasiatan fa tuhajiru fiha foofu day naa yoon kon mbokk yi koor gi lañ doon waxtaane nañu gën a góorgóorlu te lañ ca jot dafa góor a gus néew nañ ko fàtte bàyyi ko ci loxo yàlla te te te tuubaat songaat xaaj bu mujj ñaan yàlla luñ jotoon a ñu def ko te bu ñu ko defee yàlla na ko nangu te dencal ñu ko bañ ko ba ko soxlaa yàlla ñu yàlla dafa dégg ak topp te musal ñu ci seetaane ci bakkan يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين